وأعزني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 mooy client bu ñëw ñu def la ab star alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 damani neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek alladhi aghnani wa a'azzani jeeg bu siis moom mere stress boo koy seet si bett బరియతే పంచమ దాకా జరాంగ పంచులా ఇండాలి లుకు దాకా మోయ్ మర్మి దేక గలన్ mu ñëw di ko bàkk mo ci xewi xewala mi bu ko ñàkk bu ko ñàkk xewala mi bu ko ñàkk mo mën ci bépp xeetu teranga man punch moo ma doy ci teragan punch fi man waaw waaw mu saf ku ko naan na ko xam. ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. haleine bu neex. Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac est là pour vous accompagner du début la concrétisation de votre

wa ala alihi wa ashaabihi wa man nahaja nahjahum wastanna bi sunnatihi waqtada bihi wa bihim bi ihsaan ila yawmi din mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sangi saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muslu ci cher ak bakkan ñi ngi leen di ziyaar di leen baalu xaq dina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tabaarakallaahu nuyu téléspectateurs yi nga xam ñooy topp Ali Imran ak ñu ma di nekk nuyu ñu ci diaspora bi ak biir réew mi yëpp tabaarakallaahu di nuyu mu xaaj Mamadou Lamine Cissé sama waa ji di ko ziyaar baax wax ne gëj nañ laa dégg mbaa yaa ngi ci jàmm bàyyi jaase tabaaraka la ak mboolem ñi nga xam ñu ngi commentaire ñi ci xamul ñeen xamul ñëpp incha allah ñaan yàlla boole ñu defal aw yiw wu àdduna ak wa sama góor ga bàyyi biraan yal na yàlla way fa su ci loola daan ñaan saa bu jiit àjjuma pare ndeysaan yal na yàlla may yiw àdduna ak lu ci am solo ndax loo fa ci mbaax da xam ne lii doyut lu la ko mën a yàqal fi ci àdduna nag dara du ko ci jar dégg naa góor gu baax daana wax ne boo demee ba yàkkaarloog borom subhaanahu wa taala wala nga dem ba ci péncam ma danga xam ne yaa nga lebal ku mat a yebal aw yiw lebal nga ko soo demee ba toog ci place boo demee ba toog ci jotaay ba wala boog dem ba ñëw ci bis ba da nga xam ne kii nga jëflanteeg moom motoon a jëflanteeg loo ko jox ci lu baax it nag da nga bëgg ngéejoo dollu loo fa yóbbu ci mbon nag danga nga réccu yaa laytanii kuntu turaaba ak a neexoon sax ma mën a dellu doon suuf ñu may jógee ka mooñ ak a xas ak a waaye du tee man ma nekk ci li ma nekk tabaarakallaahu jullit nag bokk na ci li ko gën a mën a tàrreel ci àdduna mooy añaan yéen salaa sallam nee na képp ko xam bu ngaa nekk noble pur bul nekk ko añaane nit ñi daal li leen yàlla jox yéene leen ko rek soo ko defee rek yàlla dimbale la parce que li ma doon di wax soo xasee mën a wax lu dul dëgg pare nga pour fréquenter mboolem jikko yëpp soo xasee añaan nag pare nga hit pour perte mboolem yu yëpp yonent salaa sallam wax na ko ci xadis yaa ko wal xadat abu la ko wax abu ureeta ku xam yonent salaa sallam xam ne ko taqoona yonent salaa sallam la daana wax yéen muhaajiroon waa lansaar li leen tardeel yéen lii la mu ne ko lan la mu ne ko yéen muhaajiroon yi jógee Makka da ngeen di ñëw pour jéem a am dara am dara jooju moo leen tardeel dara yéen nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne yéen waa lansaar li leen tardeel du dara lu da ngeen di ñëw concentré wu ci li ngeen amoon ak néew mu yokk bu mu wàññeeku man nag loolu safuma yonent bi rekk ma saf ma koy taqoog moom guddeeg ba ci suba ak ngoon looloo tax ma raw leen ndeysaan waxoon Abu Hurayra ne ko Abu Hurayra iyaakum fa in alxasada yaakulu alxasanaat kama taakulu naaru alxatab nabi salaa sallam ne na yow abu urayta maa ngi lay dénk yiw ak say gaa yëpp maanaam bi xumoomi lafs la laa bi xusus sabab yaakum yéen ñëpp mim bi pilireel la ci naxu maa ngi leen di dénk yéen ñëpp wala maa ngi leen di moytu ndikaloo yéen ñëpp añaan <laughs> baat bu naqari arab ci naxu la nag iyaaka wa nang iyaaka wa sayfa <laughs> waaw ci ibnu malik al taxsir wal igra boo fa demee da nga fekk lala la irabul jumla yi nga fekk ko foofu le mu ne nag maa ngi leen di moytu ndiku lu añaan mu ne ko lu tax mu ne ko ndax añaan fa inal xasad yaakulul xasanaat lépp loo def ci wiiw ci lu baax bu añaan daf koy lakk lépp loo ci lu rafet ci lu am solo bu kañaan daf koy yàq kon moytu leen ko añaan sax li tax mu doy waar soxor li tax mu li tax mu bon mooy balaa blessé kim jëm ci yow mi mu jógee ci lay njëkk a blessé ba ko yàlla di muslu nag musul woon ci añaan ci jëmm ja li musul woon mooy soo demee ba nar ko def min sharri xaasidin kañ isa xasad may kon donc kay waxul min sharri xasad xaasidin la wax kooku ismu jëmm ji ka aji aji añaan kañ isa xasad ci jëmmi añaan ci boppam leen aaya baax waxul ci jëmmi añaan ci boppam de alxaasid la wax waxul alxasad ci masdar bi mais ismu faayil la jëf nag xaasidu aji añaan ji min sharri xaasidin kañ isa xasad <laughs> kon loolu kay am na lu muy tekki kon doo jëmmi añaan ji la amoon soxla mais jaf activité bi kii ko nar a véhiculé ka nar a defi kooku lay muslu mu ne nag maa ngi koy muslu bis bu ko nammee defi yundu salaa sallam ne nag mooy tundiku leen ko ndax dafay yëkk seen yiw léeg-léeg nga dégg ci penc mi koo xamante ni daal daanaka ci lalam lay xëy ci lay gont bu fa jógee gaana place ba ci lay xëy tollu nit am romb ko mu ne da koo sàcc wala da koo dóor ah? loo am romb ko kii di la xëy di la romb su bàngoon guddeeg bëccëg dem di liggéey yow nga xëy toog ci jotaay bi yow daal fi nga ko rek mooy naar bi comme ni gaañu wax sama ngi am ñu mu dëkkandoog ca daara kër gi léeg-léeg saa bu ñu xëy ma leen ah yéen a naar bi ñu ne waa ma ne waa baax naxante leen rek ci naar di naxante ak naar bi ah moom benn ñu nax la mbaa nga naxee rek <laughs> yéen di sallallahu alayhi wasallam nag moytu di ko añaan ndax dafay lekk seeni yiw niki lan kama taakulu naar al xatab nee na comme ni sawar di def mat noonu la neen añaan di def aw yuu soo soxoree bu la yàlla na nammee kañaan nekk ci yow lépp lu amoon ci lu baax da koy yàq day dem ba finalement dootoo am dara ci lu baax dootoo gis dara lu baax yow safaan rek ngay gis moom ngay dégg même boo jëfan boo dëkk nit sax lu ko yàqal ci ngay xëy ci ngay gont na la tane rek waaye bu la xasee bu la xasee tane tuuti lu mu ndaw ndaw ndaw dootoo ko yéene lim am te pourtant day dañoo xamul ne léeg lekk am na ñoo xam yàlla dafa dogu li yox ji di bari bari bari ci location la ñuy dëkk am ñoo xam dañ leen yóbbaale fu ñu mën di toll rek su fekkee danga añaan añaan tam bokk ci ñi la war a yóbbaale ndax da nga dem dootuloo dem ndax bu demut moo la war a yóbbaale te demut kon doo dem ñaanu ko yàlla aw yiw rek yónni salaa salaam bokkoon ci li ko yàlla dimbale mooy honneur bi mu am mooy mbégte gi am ci gisee nit am xéewal tàggat na ci saxaaba yi ba ñi ko jegoon ñu bari loo ne maa nekk seen xayib loo ne maa nekk seen sikk moom des añaan mun a abu nag maa ngi lay dénk ngeen moytuñu ko kañaan ndax day lekk seeni yiw kama taakulu naaral xatab ni sawara di lekkee matt ni këriñ ni ko xal di ko lekkee ba mujj nekk ab doom noonu la say yu baax añaan di def yal nañu yàlla musal ci kañaan ma tax waaja waxoon na ne ñett ñi amuñ saafara nit koo xamante ni xolam bi jëf yëpp ak añaan rekk ko lal ci suuf kenn amul saafaraam ki nga xam dafa tayal nanguute def dara ba pare boole kook ñàkk ci ñàkk ga ca lay dee parce que am leneen la waaye nag boo nee di góorgóorlu sax ñu am yaakaar ci yow bu liggéey mayu dara it teggi tuuma liggéey bu may wul dara teggi tuuma am ñoo xam liggéey demuñ fenn faslante wuñ xànc ak morom ja loxo ak morom ja tegalante wuñ ko yonent sallallahu alayhi nag loolu baaxul dafay deex ak moom màggat booleeg feebar eh, eh, wuy ji rek jël affectation rek amul amul saafara amul médicament tabaarakallaahu ñi ngi jaar ñëpp di baax la xaq ñëpp incha allah di leen di daje dimanche bi di ñëw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani. ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobbu maam jaaru bu soo ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër.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 te it ngeen yelloo li gën lobu maam jaaru ju jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulilah. bismillahi rahmaani rahiim bu ngeen déggee labbayka laawuma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamdal wa nixma laka wal mulk xam ngeen ne màkkal woote ram bitigu yaa faama nag ngi nii fii ci marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne bu ngeen fi ñëwee lépp luy bagage yu ujaaju màkk rek mi ngi fi xool nga ujaaj yaa ngi nii. te sunu kool kool as asli piir la ñuy jaay kii nag mooy kurus kuku original kuku baa ngi nii kii koo xas ba dem màkk boo xasee ba dugg màkk rek xam nga ne kuku loo ci ñaan yaay yàlla may la ko boo ci takk takk baa ngi nii bu feesee del rek ak prix bu abordable nag njëg bu yomb kurusu màjjal baa ngi nii caméra yaa ngi nii yi nga xam ne xale yi ñoo ko moom moom la ñuy fawee mbaxane màkk yaa ngi nii lépp ci kër yaa faama tey nag kii si jaada la da nga julli ba pare toog wéeru képp kuy dugg jumaa ku ne xam ne ne daalu dugg jumaa te sijaada la bu ànd ak saagam kii nag cuuraay bant la kuy dugg màkka xam nga ne doo bàyyi cuuraay ku ne màkka xam ne cuuraay tax suñu cuuraay ngi nii beer yaa ngi nii tamit macha allah neex a joxe sëri ca jóge yaa faama da lay jaay ba jaay la zam-zam zam-zam baa ngi nii kenn andeetu sëri ca da ngay ñëw jënd sa bitéelu 5 litres zam-zam bi teg ko sa kër maa ngi ci zam-zam yi ci kër yaa faama maa ngi ci jàllaabi bi ci kër yaa faama maa ngi ci cuuraay yi ci kër yaa faama tàndarma yaa ngi ni lii ci kër yaa faama ku ne xam ne ne boo jógee màkka danga nga war a ganale nga sol sa zamzam boo solee sa zamzam génnee sa kaas boo yëkkatee xel li nit ñi barkeelu ci kuy dem màkka rek soo mënee nga jaar kër yaa faama di nga fi am sërite yu baax di nga xam ne fenn amu ko benn boutique rek la nag ci rue angle Blaise Diagne fii ci marché Tilène numéro téléphone bi di 77 321 74 24 wala nga woo ma ci 76 741 85. alhamdulillah wa a'azzani. الحمد لله الذي